68 ففي كتاب مرام النخب في تأسيل روح الأدب ردنا جي تيري دي مرام النخب في تأسيل روح الأدب موي تيري بو خمنا شيخ محمد عبد الله دب تي شرح روح الأدب موي تيري بو أم ومي فيري تي بي ثالثها عرفان حال النفس من غدرها وكيدها والدس بيت بو الشيخ شيخ إبراهيم رضي الله عنه جي روح الأدب xam nga ni euh, ci baytu boobu li ci baay radiallahu anhu di jàngale mooy xaalu bakkan yi xaalu bakkan yi dong la ciy jàngale te fiñ toll darsu bi darsu bi weesu boko deglo nga xamni jàngale won nañ juróom ñetti façon wu bakkan yo xamne ay musiba lay fi nak bay dafa ñaax talibe bi ne hasil uluman arba'an an za yow mi sobu ci yoon yàlla fexel ba am ñenti xam xam-xam yi awaluha irfanu rabbil malik bi ci ñeek moy nga xam sa borom mi la mom والثاني أن تعرف ما يعلق على العبادات فذا تحقق نيارل بي موي nga xam li aju ci sa wal jaamu yàlla moy sharia bu ko defé xam gi nga xamone yàlla meuna wex so xamé yàlla ta xamo sharia so xam yàlla gi wérut taalisuha irfaanu xaali nafsi ñetteel bi moy nga fexe ba xam sa xaalab bakkan bakkan di lan moy halam ghadr min ghadriha wa kaydiha wa dassi wor bim lay wor fexe yi mi dugal ci yow tilimal bi mi tilimal sa xol yoy nga xam ko ba mu yeggee ci bayt bobu mune an nafsu min axbasi a'da'il albashariya wal xayriya bakkan dafa bok ci noni doomu adama yi gëna bon way noni mbax yi gëna bon wa min aqwa almuawiqat walmuhabitat an alcuruji ila manazil alaxyaar bokk na ci gàllankoor yi gën a féddaliku yi bakkan di def ci jaam bi mooy tere jaam bi mu yéeg ci yéeguwaayu nit ñu baax ñi fa hiya kama qaala taala bakkan moom comme ni ko borom bi tabaraka wa taala waxee rek amaaratun bi suu diglaakoon la ci lu bon jàngoon nañ anafsul amaarat bi suu wala tattaxiz taduwaaru fa hiya kama fi rimaax moom bakkan comme ni mu rotee rimaax rek cheikh omar il fuuti ci rimaahu Cheikh Omar al-Fouti radiyallahu anhu muttasifatun bi axlaaqi shayatin bakkan dafa meloo jikkoy seytaane kal kibri lu mel ni wal ixwaa yi ak mbeew maanaam beew wa tazyinil maasi ak taaralal la mooy yàlla wa shahawaati ak bànneexu bakkan wal idlaali di la sànq wa taswiifil amali lépp lu baax loo war a def mu ne la xaaral tuuti xaaral cinq minutes xaaral quinze minutes ba nga mujj ko bay wa ilqa'il il ak dagg li nga xamne mom moy ay kullu rewal mawaid fu kadhiba bi dem wuyu ji li nga xamne moy rendez-vous yi nga xamne rendez-vous fen la wal kufri ak kéefar wal hasadi ak kanyan wal kufri ak wal kufru ka hasadi qabil ak weddi kinyan comme kinyan ak قابل ميغا خم وعتو نمرود اك فتر لوك نمرود واستعلاء فرعون اك ريري لوك فرعون وبغي قارون اك مبوتك قارون ووقاحته هامان اك مبونتك هامان وهوى بلعام اك باني خبكن بلعام بمجيخ بوكو توبي جريما فلا يصل للعبد شيطان الا بشهوتها أه، فلا يصل دو يغ للعبد ci jaam bi cheytaanun benn seytaan illaa bi shahwatiha lu duur ci bakkanam lay jaar wala yaqtaximu maasiyatun illaa bi xamliha du def benn bakkaar lu duut ci bakkanam la jóge wa min radaatiha jahluha bokk na ci li gën a bon ci bakkan mooy riiram ida hammat bi maasiyatin saa yoo xamee ni xemmem na def ak mooy yàlla wan baasat li shahwatin wala mu xemmem dem ci lu neex bakkanam law tashafaata ilayha law tashaffaat ilayha law tashaffaata ilayha billah donte ka sax yaa ngi koy ñaanal intervention ci yàlla wa bi rasul yi ak yonentamu bi jamil anbiya wal mursalin ak ci mboolem anbiya mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla euh, yoon ñi maanaam ñim solo ak ñi mu jox mission bakkan dafay ba moom toujours rek ci li muy nekk mooy loo xam ne dafay toroxal jaam kon gis nga bakkan toujours ci li nekk rek mooy luy delloo ginnaaw jaam bi même su fekkee ñaan nga intervention ci malaaka yi ci rek asamaan yi wa bi jami salafi saalihin ak ci mboolem mag ñu baax ñi min ibadillahi ci jaamu yàlla yi wa ta alayha al mawt nga gaaral ko wal qabr ak bàmmeel wal qiyaamatu ak bis wal jannatu wan naar ak aljana ak safara la tan qadu ila lak dula la womatul mukk wala tatruku lak ma'siyatan wala sahwa dula bayil ben moy yàlla wala ben banexu bakkar lida loolu motax amara al abdu bi jiha umira al abdu bi jihaadiha yàlla digel jam bi mu xex ak mom bi anna tushabihu al kafir fi kawnihi yuridu an takuna kalimat al kufri hiya al ulya ndax mom da fay ndiroog kéefër ndax yefer mom lim bëgg moy batap yéfer nek ci kaw wa kalimatullahi as sufla batap yàlla wàcc ci suuf fa hiya kama qila ngi mel ni ma tawwiq nafsaka taman min ghawaiqha fa nafs akhbas min sabina shaytana yaral sa bakkan ngir nga mëna muccu ci ay galankoram ndax bakkan mo gëna bon juróom ñaar fukki shaytan fa ida aradta an tuhasiba nafsaka qabla an tuhasab su fekke da nga bëgg hisab sa bakkan bala ñu lay hisab وتأمن من غدرها غمتشو تاي ورم ومكرها أكي بخم وخبصها أكي تلم تلم ودسائسها أكملتم فاصحب لها عارفا بالله نغفخ بأندق كو خم يالا قوي الصلة به كو خم نكو دقر أك جوكو لك يالا إيه، يروضها حتى ينقصها من أطرافها وكو دفع مو تغت بكن ba génne ko ci mon bon yooyu wayan xar wayan xaruha bi sikkiinil fana mu rendi ko ci paak ak fi fillaay ci yàlla walin xiyaasi ilayhi ak lab ci yàlla waya dussuha qammamatul ihmaali wan nisyaani hatta tan xalia min siyaabiha denisa alxadira wa tazakka bilinxiyaashi ila allah fatakunu cawnan laka ala alcubudiyati walsidqi walintiqaali min almuridiya ila almaradiya boo ko jaaralee ci fanaawu bam lab ci péeb yàlla bi ak càggante fàtte mbonte yooyu yépp màbb ci moom bam summi mbubbab tilimam ak mbubbab saltem euh, sol mbubbab cell jeex ci yàlla bu ko defee nag mu nekk sa ndimbal ci wàllu sa jaamu yàlla ak ci tëggal yàlla toxoo euh, euh, jógee ci muridiya jëm ci muradiya jugee ci euh, maridiya boog laa bëgg a wax fetterlu jëm ci muradiya nga xam ne day am namm namm ci yàlla moo tax bàyyi teg ci ne li nafsi aybun lil fuaadi aybun li ruuxi aybun laysa fihi raybun bakkan dafa ànd ak ayib xol dafa ànd ak ayib roxu dafa ànd ayib loolu amut sikk hadihi hiya al qiwa al mutasattira al musahabati lil insan ñooy doole yi nga xam kattan doole yi nga xam ne dañoo hiiru te ànd ak doomu aadama wa hiya nafsuhu te mooy bakkanam qalbuhu xolam ruhuhu ruhoom bi nga xam ne mooy ruhuk xayawaan yi nag di la xamal ni ruhuk dëgg-dëgg du tilim mukk ixtiraadan min ar ruhil aala pour leeral buñ ne ruhul xayawaan xam ni waxuñu ruuxul aala bi nga xam ne wa yasalunaka ani ruux quli ruuxu min amri rabbi waxuñ boobu ruuxul aala alladi bi nga xam ne huwa aalamu ruux amri mooy aalamul amri te mooy yàlla wa yasalunaka dinañ la laaj yow muhammad ani ruux yi ci mbiram ruuxu qul waxal ni ar ruuxu ruuxu min amri rabbi ci mbiram sama borom la bokk wa uyubu hadihi alqiwa salaas as salaas ay bëgg ñetti doole yi muy nafsu qalb ak ruuxu هي كونها محجوبة عن الله وإنك جينا خمنا نك نجو هيرو وليس الله والمحجوب عن الله لا يجكو العظمة عظمة الآمر الناهي كي هيرو تي كنم يالله كوكو مغاك يالله مي ديغليك تري دوكو جوت الذي هو الله تبارك وتعالى ولم يدرك العظمة الإلهية لا ومن لم يدرك العظمة الإلهية لا يصح منه اجتناب ولا امتثال كيف كو خمنا قمت مغاك يالله كوكو mënta moytu ndi mënta moytu tereb yàlla te mënta jëfee ndigalal yàlla bal mukminun li daa'atihi l mux xaalifan naakima anil jahli billahi wal xaflati ay day nuur rek ci virisam ci febaram yi nga xamne dañuy wuté ak yàlla diko lablo rek ik réer ak càggane yàlla waqad takallama cheikh ibrahim radiallahu anhu fi riyaadi tafsir an nafsi في سورة يوسف عند قوله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم شيخ إبراهيم نصر رضي الله عنه وحنا رياض التفسير وحنا بكن رياض التفسير بمي فري سورة يوسف تي بتبارك وتعالى بمي نتلي تي لامنيو زليخا وما أبرئ نفسي ما ستل sama بكان ndax bakkan moom diglaa kon la ci lu bon ndax sama borom aji bale la aji yërëme la qala radiyallahu anhu mom bayna radiyallahu anhu wahdani idha ja'at ar-rahmatu min al irrahmatu al-ilahi yasir man de tuké ci péeb yàlla bi wa fadat ala an nafsi bëgg ci bakkan bi tan taqilu min an annafsi al ammaratu bis-su ila an-nafs al lawaama bakkan da fay juggé ci bakkan bi nga xamné aji diglakon la ci lu bon ñëw ci bakkan bu yedd أقسم الحق تبارك وتعالى بتلك النفس بكن بوبو سن بروم سبحانه وتعالى جنتي موي لا أقسم بالنفس اللوامة النفس اللوامة بكن بيد هي التي تلوم صاحبها عندما يصدر منه سوء موي بكن بيغا خامن داي يد بروم سا يدفل بون فإذا فادت عليها فيضة أخرى تي بنين بب بب تي بكن بوب غا خامن موي نفس اللوامة من رحمة الله تبارك وتعالى توكي تيرمون يالله ميغا خامن موي كبري وتكوي mu takunu mulhima mu nekk bakkan boo xam ne dañ ko yenkawal yàlla wax na ci alquran fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñu yenke yenkawal ko ak ndëngiteng ak jubam takunu nafsan mulhima mu nekk bakkan boo xam ne bu ñu yenkawal laa taatani illa bil xayr du yittewoo lu dul lu baax walakinaha xayru kaamilatin mutamakkinatin ji jiddaal waaye moom du mat ba am maîtrise ci limne ne istamarat alayha fuyudat arrahmati su bëbbëg yërmande yi wacce ci mom tasiru mutma'innatan day mujj soppeku di bakkan bu dal bi xadratillahi tabaraka wa taala ci péeb yàlla bi nga xamne ku kawela te bari biw allah huwa almaliku alxaq yàlla mooy buurab dëgg bi wal insaanu abdun doomu aadama jaam la wala abdu laa yazaalu yactaridu ala mawlaahu fi jamii afaalihi jaam bi moom du dañ mukk di kontur boromam ci mboolemi jëfam maadaama lam yarda anillah fek nangulul yàlla wallahu la yarda anhu yàlla du ko nangul wa idha kana rashiyan an jami' ma sadara bihi min al ahkam al ilahiyya takun nafsu rashidan bok su fekke nek na ku aji jup ci mbolem lu tukkee ci atte péeb yàlla bi takun nafsuhu nafsan radiya bakkanam boobu day doon bakkan bakkan bi nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala gërëm na ko fata mu nekk buñ gërëmlu indallaahi fa yàlla fa tasiru kaamilatan mu mujj nekk bakkan bu mat hiya sabaatu maqaamaatin bakkan yooyu nag juróom-ñaari maqaama la an nafsul amaaratu bi bakkan bi digle lu bon wa nafsul lawaama bi yedde mulhima bu yenk yenk bi ñu yenkawal njubak dëngte bakkan nafsul mutmainna bakkan bu dal bi nafsul radiya bakkan bi nga xam ne buñ gërëm la nafsul mardiya bakkan biñ gërëm lu nafsul kaamila bakkan bu mat bi suluku xayril anbiyaa'i min an nafsil amaarati bi suuyi ila an tasila ila al kamal ne soobu ñi nga xam ne duñ ay yonant ñu ngi tàmbalee ci bakkan bi digle lu bon ci ci bakkan bu mat bi wa sulukul anbiya min an nafsil mutmainna ila al suluuku soobu yonantu yi nag ci nafsul mutmainna lay tàmbalee jëm ci nafsul kamal kon nga gis ni nafsul munhima amul ci yonantu nafsul lawaama amul ci yonantu yi nafsul amaaratu bi suu amul ci yonantu yi idan fa aybu nafsi yukminu yakmunu fi adami tawajjuhiha ila allahi tabaraka wa taala ayiba bakkan nag li koy defal mooy bañ a jublu borom bi tabaraka wa taala wa ma sahat wijhatuha ila allahi tabaraka wa saa yoo xamee ni jubloom ci yàlla wér na rek tataharat min min assuui laab na ci lu bon wal amri bihi ak digle lu bon wa tadarajat min madarijil kamal mu yéeg ci échelle yi nga xam ne mooy échelle uk mat wa man saara ala darbi wasal te képp ku jaar ci yoonuk mat di nga yegg قال الشيخ رضي الله عنه في رياض التفسير بتاي باي رضي الله عنه وحنا في رياض التفسير الإنسان فيه روحان روح حيواني وروح إنساني doomu aadama ñaari ruuxu ñoo ko ëmb ruuxu xayawaan yi ak ruuxu doomu aadama haada ruuxul insaani bihi tumay tamayaza bnu aadama an gayrihi min al xayawaan ruuxul aadam yi mooy gi dundal doomu aadama nga ko tuddee mooy liñ ràññatlee doomu aadama ak yeneen bindeef qultu lakum bàyyi ne wax naa leen fi tafsiri wal mawtaa yabasuhumullah ci firib aaya wal way dee yàlla dina leen dekkal innal jasada bila ruuxin mayita jëmm ju amul ruuxu médd lañ koy tuddee wa jasadun bi ruuxin wala aqla majnunun jëmm joo xam ne ànd naag ruuxu waaye ànd ak xel dof lañ koy tuddee wa in kaana bihi aqlun su fekkee ànd naag xelam wa laysa fihi maarifatun waaye amut xam yàlla haada aqlun haada aqlun euh, aqlu kamalin daa'iin lam yantafi bihi kooku xel gu mat la gu sànk goo xam ne duñ jëriñu ci moom وإذا كان معرفة حصل المرادة سو أمي معرفة رك جوت جاكو تفهم يكون المعرفة آه، روحا للعقل معرفة مم دافاي نيك روحو تي روحا للروح خل موي در روحو والروح روحا للجسد روحو موي در جم ويقول رضي الله عنه في تفسير سورة الأنعام بتي باين رضي الله عنه في تفسير سورة الأول الجسد إذا خلا من الروح يكون منتنا من mu ne euh, jëmm bu ci ruuxu génnee rek meddi la wa yakunu fihi damm wa sadid deret ak sidit rek ñoo fay des wala deret ak dëtt rek ñoo fay des euh, al maslahatu fihi lii yëwén ci moom mooy an yudfana taxta al ardi ñu suul ko wal jasad ida kaana fihi ruuxun bila aqlin yakunu saahibuhu majnunan jëmm ju ànd ak ruuxu te amut xel borom dof la اذا خلا من العقل يتصرف تصرف المجانين نيت سايو خيل روتيكو سي موم رك موي سوبانديكو سوبانديكو دور واذا كان فيه روح وعقل بلا معرفه سامره خل تامل معرفه يكون العقل كانه شيء ضايع خلم داي ملني لا ينتفع به دوشي دوكو جيرينو واذا كان فيه معرفه سامي معرفه نكف هذا هو الحي آه، الذي ينتفع بحياته موي دون حي مانام E, kuy dund ki nga xam ne dañuy jëriñu ci dundam idan al maarifa ruuxun ruuxu ruuxi maarifa mooy ruuxu ruuxu ruuxi ruuxi ruuxu ruuxoog ruuxu ruuxu gi maarifa mooy ruuxul aqli aqlu ji kon nag fama xalaw an jamil arwaaxi فلما خلوا عن جميل أرواح سارو موتا فسماهم الله الموتى وعندما يبرف لكم بولم خيطره يرك مجنك أي مديال تدلن ويدي وإن شاء أحياهم بالروح سكو صوبة مجند للن روح والعقل أكخل والمعرفة أقام يالله فيستجيبون لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم نيجي وات بي رونت صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون اليه توب نيو ديلو سي موم فيجاديهم باعمالهم مو فايلن سيني جيف hada hada al baasu lii mooy dekki incha allah fi dunia ci àdduna kon dekki dafa am ci àdduna ak alaxira képp ku xam yàlla dekki nga bi irsaali hadihi al ci wàccee yooyu le ruxu wa illa fa hum fi l axira laa yabaasuuna bu dul loolu ñoom alaxira def leen dekkil wa yarjiuna ila allahi ñu dellu ci yàlla fa yujaazihim bi amalihim mu fay leen seeni jëf loolu boo demee ci maraamul nuxar fi tasiruhil adab